bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi noo ngi yëkkati sunu kàddu tàmbale ko ci nuyoo boobu te mooy nuyoo lislaam di ñaan yàlla lim ci dëxañ te mooy jàmm ak yërmande ak barke mu tasaare ko ci àddina bépp rawatina ci réew yi nga xam ni ay jullit ñoo fay dund waaye rawatina suñu réew mii di senegal di ndokkeel suñu bopp di ndokkeel mbooleem jullit yëpp ak mbooleem murit yëpp fu ñu mënti nekk ci weer wu màgg wi nga xam ne nii moo teru te mooy weeru safar ñuy séentu bis bu màgg bi nga xam ne ni mooy fukki fan ya ak juróom-ñett ni ko sëñ boo waxee léegi ñaan ak jàmm te mën koo joxee ci gën jaarafeti anam di nuyu ak a ndokkeel bu baax kilifa gi yoon wi di alxalifatul am lil muridin Cheikh Sidil Mokhtar waaye ndokkeel yi ak cant yooyu ak nuyu yooyu ñu teg ko ci loxol sëriñ Ahmadul Badawi mi nga xam ne nii mooy sunu jëwriñ ci liggéey bi mu jot leen ñu ko mbooleem njabootu Seexul Xadim gi nga xam ne nii ñoom la seqal bis bi. di nuyu ak baax ak nuyu bu baax ak sargal nag sunu mbokki bopp yi nga xam ñoom lañ fekk si fii muy njabootu sëriñ Balla Coro. waaye mën nañ koo yaatal ba njabootu soxna Coro Diop gépp nga xam ne ni ñoo seq soxna Coro Diop di leen nuyu di leen sargal di jokk bokk yu baax a baax di ci ñaan sunu borom gën ñu koo dëgëral di sant bu baax daayiratu Rawdu Rayaahiin ak ñi nga xam ne nii ñoo na ci bopp bi te bu xew-xew yu mel nii amee ñuy def ay jataay yu mel nii di ci jàngat ay mbir yu am solo yoo xam ne nii dana yitteel doomi taalibe dana yëppeel jullit yi waaye dana yitteel taalibe yi ngir mën a am ak maas wala génération boo xam ne nii dana xam boppam waaye te dana xam ay cëslaayam dana xam mbatiitam waaye nag dana xam li nga xam ne nii moom la jamono laaj ba mu mën a dund mbatiitam te mooy culture am aadaam cosaanam waaye itam mën a jox ab cëram li nga xam ne ni moom la jamono ci laaj loolu nag yaakaar naa mënuñ koo boole lu dul bu fekkante ne dañuy def ay jataay yu mel nii ngir waxtaane mbir yi nga xam ne ni yitteel nañu ñun ñëpp te buñ koy waxtaane nag ñu génne ci lépp luy xeeti parparloo wala luy xeeti wane sa pas-pas wala yu mel noonu waaye ñu waxtaane ko ci waxtaan woo xam ne nii dañ koy def mu nekk waxtaan wu objectif boo xam ne nii maanaam daal danga ko wax nanga ko gisee na nga jàngate situation bi ak lim la jox te jublu ci nag loo xam ne nii jay jariñ ñëpp kon loolu mooy solos jataay bi ni ko sëriñ Fall waxee léegi ci alxaaji bokk sëriñ Fall alxaaji Njaay ni mu ko waxee léegi ci wàllu làkk ci lañuy waxtaan tey muy langue étrangère yi ak seen importance wala seen solo ci tasaare woote sëriñ bi nga xam dafa jot dafa jóg ngir joyanti askan wi waaye joyanti ay melokaan joyanti ay jikko ñu ñëpp yaakaar nañ ne na nañ ci ne làkk moom ci yi ñuy xàmmee doomu aadama ci la bokk ba tax na léeg-léeg sax bu ñuy xamle kan mooy doomu aadama dañuy wax ne doomu aadama mooy ndundat bi nga xam ne nii wala animal bi nga xam ne nii day wax kon wax ci làkk doomu aadama dong la ko sunu boroom jagleel yeneen ndundat yi ci kaw suuf yeneen animaux yi ci kaw suuf la ñuy def lum kawe kawe ak gut ci làkk woo xam ne nii day composé wu ci ay baat ak i phrase ak expression yoo xam ne nii dañ koy mën a xam kon làkk mooy particularité bi nga xam ne nii wala boog mooy xàmmikaay bi nga xam ne nii sunu borom moo ko jagleel doomu aadama kese. làkkit wala làngit mooy jumtukaay bi nga xam ne nii bu njëkk te bi gën a mat ci jokkalante ay kàddu waxante ci sunu biir mooy jumtukaay bi nga xam ne itam moo ñu mën a may ñu déggoo ci sunu biir. bu ñu amul làkk bu ñu mën a déggoo suñu biir duñ mën a waxtaan bay juboo ciy kàddu mooy jumtukaay bi nga xam ne itam moo ñu mën a may ku am xalaat wala ay gisiin yoo bëgg a tasaare ci làkk ngay jaar ba mën koo tasaare dana jafe lool tam ñu mën a xool wala ñu mën a dégg dund goo xam ne nii aw làkk amu fa mbooloo muy dund te amuñ làkk wu ñuy déggante seenug dund dana jafe lool nit mën a xalaat ne dundin woowee mën naa jaar ci yoon làkk nag ni ko gëstukat yépp xame jum phénomène la boo xam ne dafay sosu automatiquement kenn mënul diw moo koy sos waaye gis nañu daal fu mbooloom bindeef tase il faut aw làkk dana fa sos mbooloo fu ñu dajee il faut que ñu se tam ñu fent jumtukaay boo xam ne nii ci la ñuy waxante seen biir jumtukaay boobee mooy làkk kon mbir la moo xam ne nii ñëpp a ko am waaye kenn mënta wax ne diw mii moo fent làkk wi waaye fu mbooloo daje daal il faut ñu mën faa créer loo xam ne nii ci la ñuy déggantee te loolu mooy làkk wi loolu nag mooy tegtal ne kon làkk yi mën naa bari lool ni mbooloo yi bare noonu la làkk yi bare waaye tam làkk yi mën naa bari lool ci façon yañ koy defee wax ji ñuy def nii aw làkk la waaye am na làkk woo xam ne nii ay junj lay doon tey booy dawal oto code de li muy wax ak yow làkk la ay tableau lay def sa kanam di wax ak yow ci tableau yooyu ne la fii nga war a jàdd fii waroo fee jàdd fii nga war a gaare fii waroo fee gaare loolu itam aw làkk waaye itam am na symbole yoo xam làkk la junj bi muuma yi def mouvement mouvement yi li ñuy defee. wala ñi nga xam ne nii seen dégg-dégg neexul junj yooyu ñu def ci seen loxo ak yu mel noonu loolu tam ba tey làkk lañ koy tudde kon làkk xeet yu baree bari la kon nag loolu la muy tekki mooy ne képp koo xam da nga amul xalaat wala nga am pas wala nga am méthode wala manhaj wala yoon woo xam ne nii da ko koo bëgg àggale ci ñeneen ñi nga xam ñoo nga seqal kaw suuf il faut que nga man jumtukaay boobu nga xam ne ni ci nga mën a communiquer ak nit ñi bu dul loolu rek danga am jafe-jafe bu mag a mag ci jàllale li nga xam ne nii moom nga bëgg a jàllale te loolu dañ ci gëna a ñëw mu gën a leer ci kanam ñun nag bokk nañ li nga xam ne nii amuñ benn sikki sàkk ci ne njàngaleem sëriñ bi ak wooteeb sëriñ bi am na valeur yu mag a mag a mag ci dayo bu mag a mag bu am te it leer nañu ne sëriñ bi ci am njàngaleem li mu jàngale àddina bépp mën nañ cee jariñu àddina bépp ci mën a jariñu nga xam ne tey bu ñu ko tasoon tey ba mu tasaaroo jafe-jafe yu baree bari yu àddina bi jànkonteel mënoon naa réglé wu su fekkonte ne jàngatoon nañ njàngum sëñ bi ak ni mu tërale woon waaye nag noonu mu amee njariñ noonu mu amee valeur noonu lañ xamee ñun ñi xam nañ ko ñeneen xam nañ ko ne njàngale moomu ba léegi mu ngi nekk ci diggante bu xat lool boo xam ne ni ni mu war a tasaaroo tasaaroo wul noonu loolu nag léegi boo ko ci yenn jotaay yi mën naa ki waaye loolu moom ñi gëstukat yëpp xam nañu njàngaleem sëñ mi ni mu war a tase ci yeneen làkk yi war a tase ci yeneen réew yi war a tase ci àddina bi des na lool te loolu dañ ko gën a leeral ci kanam ñun ñëpp ñu war a bàyyi xel ci ne nag njàngale moomu nag bu ñu ko bëggee tasaare àggale ko ci ñeneen ñi il faut ñu am stratégie bu leer naññ boo xam ne dañ koy étudier bu baax waaye itam am jumtukaay yu mat sëkk yoo xam day mat lañ ko soxlaa ngir njàng moomu mën a jàll. langue yi nga xam ne moomuñu ko nag. ci jumtukaay yooyu ci la bokk yi ñu war a jëfandikoo ngir mën tasaare njàngaleem sëñ bi fu man di doon. moo tax ñu gis ne kon tànn gi ñu tànn thème boobu te mooy waxtaane solos làkk net làkk ñeneen ñi ci tasaare njàngaleem sëñ bi gis nañu ne tomb la boo xam ne nii waris na ko mën a waxtaane ci jamono jii ñu toll nii liñ jiblu ci waxtaan wit mooy bu ñu fi jógee. ñu mën a am position bu leer nañ boo xam ne ni wax dëgg yàlla dañ koy teg ci xam-xam teg ko ci xalaat lu leer ci ban taxawaay lañ war a am ci suñu digganteeg làkk yooyu nga xam mooy langue étrangère yi. ngir waxtaane waxtaane nag dañ ko séddale ci tomb bu ci nekk danañ ci tënk tuuti ngir sàmmanteeg waxtu wi ñu jox bi ci njëkk danañ wax lan mooy langue étrangère lan mooy langue làkk jàmbur buñ ko waxee ñun luñ ci jiblu buñ noppee danañ tënk tuuti ci taxawaayu lislaam ci jàng làkk yi nga xam ne nii ay làkk jàmbur lañ leen di tudde buñ noppee danañ waxtaan ci solo si nga xam ne nii jàng làkk yooyu am na ko ci jàng bi si fa am maanaam ci d'une manière générale buñ noppee danañ jéem a jàngat tuuti nag naka lañ mën a déggee taxawaayu Serigne Touba ci langue yooyu ñu tudde làkk yu dul làkki réew mi danañ tënkit jafe-jafe yi nga xam ne nii ñun murid yi am nañ ko te mu jóge ci sàggane guñ sàggane ñàkk a jàng français bi dapt wala bokk ñàkk a jàng yeneen làkk yooyu dinañ tënk tuutit ci làkk yooyu buñ ko jàngee lan la nu mën a jariñ bu noppee nag wax langue yooyu naka lañ ko war a jànge ba loraange yi suñu alaaj doon wax léegi du ci mën a juddoo suñ noppee door a tëj waxtaan wi loolu mooy kon tomb yi nga xam ne nii bu nekk bëgg nañ ci tënk tuuti ubbee ko jataay làng moom phénomène sociale la phénomène social nag bu ñu ko waxee mooy loo xam ne nii buy sosu kenn mënul ne maa ko sos fu mbooloo daje loolu dafay sosu làkk ci la bokk waxoon nañ ko léegi fu mbooloom nit daje il faut que aw langue sosu fa woo xam ne nii ci làkk woowee ci la ñuy déggante seen biir sart ba nag mooy ñu daje ci benn place te am fa diir bu bu ko mat boo xam ne nii laaj na ñoom seen biir ñu joxlante kàddu boobaa il faut que ñu créer lu ñu mën a joxlante seen biir làkk woowu nag amul benn làkk boo xam ne nit daf koy judduwaale làkk mu manti doon nit daf koy fàggu gannaaw gum juddoo ba noppi moo tax léeg-léeg nga dégg ñu wax langue maternelle jublu ci làkk làkk wi nit ki nàmp xëy na waxin la waaye du waxin wu jub làkk wu ñuy nàmp amul xëy na kay su langue wi sa yaay dégg dafa tolloog ne comme sa yaay moom ngay njëkk a mooy njëkk a yow baat yi muy wax ak yow moom ngay njëkk dégg ci langue moo tax ñu koy tuddee langue maternelle waaye du langue boo xam koy nam tegtal ba mooy ne xale bi judd woon tey yaayam di wolof ñu nàmpal ko mu fer ñu fer rek ñu daal koy xonc yóbbu ko ci séeréer wala yóbbu ko ci pulaar xale bu màggee du làkk wolof waaye pulaar lay làkk wala séeréer mën naa bañ sax dégg wolof kon làkk bu ñuy nàmp amul làkk bu nekk nit dafay judd ba noppi fàgguwaat ko nag ci biir ñam yi jaxasool moo tax làkk ñu koy séddale ñetti xeet am na lu ñuy wax làkk wi nga xam moom la sa famille di làkk famille ba nga juddoo wala boog fa nga nekk fa nga yaroo làkk ba ñuy làkk ak làkk yi nga xam ne nii mu ngi juddoo ci biir Sénégal mi ngi sosoo ci biir Sénégal ña koy làkk biir Sénégal lañ nekk ak yeneen làkk yoo xam ne nii nag dafa ñëw dugg biir Sénégal waaye ña koy làkk cosaana wuñ Sénégal làkk yooyu ñëw dugg biir Sénégal nag te cosaana wuñ Sénégal ñun moom la ñuy tuddee al lughaatul ajnabiyya wala ay langue étrangère lu mel ne français ci la bokk lu mel ne arabe ci la bokk lu mel ne anglais ci la bokk lu mel ne espagnol ci la bokk ak yeneen làkk yi nga xam ne ni ñu ngi koy jëfandikoo ci biir Sénégal kon bu ñu waxee ñun langue bi dëkkut ci réew mi arabe bi ci la bokk français bi ci la bokk anglais bi ci la bokk leneen ak leneen ci la bokk bépp làkk boo xam ne nii sosowut ci biir Sénégal waaye dafay dugg gannaaw bu ñu amee Sénégal ba noppi loolu la ñu tudd langue bu fi dëkkut làkk boobu nag jàng ko dafay lu am solo jamono ji ñu toll nii defe naa ñun ñëpp dëppoo nañ ci ne àdduna bi léegi nekkatul ay continent yu tasaaroo waaye léegi dañuy wax ne àdduna bépp léegi village bu ndaw la ndax maanaam tey fii ñu toog ci Touba di fi waxtaan li ñuy waxtaan tey àdduna bépp nga koy gis kon ay barrières yi amoon bu njëkk amatul kon ñu ngi ci àdduna boo xam ne ni léegi lépp dafa taxaloo nekk benn benn benn benn kutubal am na lu ñuy jariñ ñeneen ñeneen am lu ñuy jariñ ci ñu kon njariñ yi dañ koy jokkalante suñu biir ñu nekk ci àddina boo xam gis nañ ne wàllu connaissance wala boog ay xam-xam dafa tas dafa tasaaroo ba tax na léegi jàpp na yow dong mën ngaa dund yow kese te doo jokkoo ak ñenn ñi loolu mën a nekk kon képp kuy dund ci àddina bi jamono ji ñu toll nii da ngay soxla di jokkalanteeg di communiquer ak ñeneen ñi nga xam ñoom nga seqal kaw suuf ñu gis nag ne kon balaa ngaa mën a jëflanteek kenn. moo xam da ngay commerce moo xam dangay ngay tasaare diine moo xam loo man mënti def balaa nga mën a wax ak kenn ba di ko convaincre ba mu lay fekk si il faut nga am noo mën a jub waxal ak moom loo mën a déggante ak moom. déggante boobu il faut mu tegu ci ay fondement yoo xam ne nii dañ koy xam kon nag déggante boobu mën ta am te jumtukaay bi ñuy déggante amul te jumtukaay boobu mooy làkk mooy làng bi kon làkk mooy jumtukaay bi njëkk jamono ji ñu toll nii ngir mën a communique ngir mën a jëflante ngir mën a tasaare say xalaat ngir mën a tasaare say bëgg-bëgg ngir sax mën a def leneen ak leneen jaay say produit ak lépp loo mën def ci àdduna bi léegi làng ngay jëfandikoo ngir mën koo tas loolu nag am na réew yoo xam ne nii ñoom xam nañ ko bu yàgg bu yàgg lañ xamoon loolu ñoom ba daan jël ay missionnaires yoo xam dañ leen yóbbu ci yeneen réew yi buñ demee lañ fay wuti mooy lan mooy jàng làkki waa réew moomee ba xam ko buñ ko xamee seen réew mën a jëfandikoo seen dégg làkk boobu ba mën a jëfandikoo ñooñu nga xam ne ñoom lañu fekki woon moo tax ñun ba ci suñu langue yi nga xam ne dañ koo xeeb lu mel ne wolof lu mel ne pulaar lu mel ne séeréer lu mel ne joolaa nga xam ne ñun day mel ne dañ koo xaw waaye fa lool te war koo gën a fonk léegi am na ay téeméeri téeméer wala junni junni nit yoo xam dañuy jóge ci yeneen nationalité ay américain ay japonais ay ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ni day ñëw fii ngir jàng làkk yooyu bu ngeen xoolee corps de la paix américain wala nga xool volontaire japonais yi bu ñëwee dañuy tudd tudd sénégalais turu sénégal la ñuy tudd ay kumba ay sàmba ay demba dem di jaxasoog cosaan ci àll ba nga xam ne dañuy jaxasoog ñiy làkk wolof piir wala ñuy làkk pulaar piir wala ñuy làkk séeréer piir buñ demee dootuñ nangoo làkk anglais dootuñ nangoo làkk japonais dootuñ nangoo làkk benn làkk làkki waar bañ fekk foofa moom la ñuy nangoo wax ak ñooñu ngir mën a maîtriser langue bi ñooñu nag buñ ko maîtriser ba noppi buñ delloo fañ dëkkoon nag langue boobu la ñuy jëfandikoo ngir liggéey ay liggéey yoo xam ne nii dañuy ñëw di ñu ko jaay par force duñ ko sañ a bañ loolu ku nekk xam na ko kon ay milliards lañ ciy def yaakaar naa nag ku nekk xam ne ne tubaab du jël ay milliards di ko joxe ngir yàlla lépp lu muy dépense ay milliards lu koy jural njariñ la kon ñoom làkk yooyu ay milliards lañ ciy fe lañ ciy def weesu na foofu léegi léegi boo demee ci réew yu mag yi. ci université yi gën a mag dangay fekk ñu ubbi ay département yoo xam ne wolof lañu fay jàngale wala ñu fay jàngale pulaar wala ñu fay jàngale làkk yi nga xam ñun ñoo ko moom ay yoroba ay hausa ay làkk la yoo xam africain yi ñoo ko moom te xaw koo xeep léegi ñoom dañ koy ubbi ay département ci université yooyu di ko jàngale kon loolu ku nekk xam ne ne kon ñoom teel nañ koo xam ba teel koo yittewoo moo taxit nag nit ñi yilifee day gën a yokk ndax dañoo xam dañ ñoo xam ñu dañ ñoo jàng ba xam ñu tey kon jàng làkku jàmbur mënta tey lislaam bi ñu yor lislaam ku ko bëgg xam dëgg-dëgg il faut nga jàng làkk arab ndax arab alxuraan ci arab lañ ko wàcce te mënoo dégg alxuraan te jàngoo arab te sa lislaam nag mënta rafet mat sëkk ni mu war a mate te xamoo li alxuraan di wax ak yow te ñàkk ñàkk a dégg arab nag ci yenn réewi jullit yi moo jur déggin wu juunu wi am ci diine ñu baree bari ci ay baat lañuy wuute te fi xaqiqa ñàkk maîtriser langue arabe moo tax ñu wóote ca baat yooyu waaye waruñ mënoon nañ cee bañ a wóote su fekkoon te ñoom ñëpp xam nañ arab xamin wa ca war kon ñàkk dégg loxol arab yi bi nga xam ne nii ci lañ bind lislaam alxuraan wàcc ci moo indi lu baree bari ci déggin yu juun yi nga xam ne nii am na ci diine waaye tey jëlal fu mel ni Amérique boo bëggoon a dégg culture américaine dëgg-dëgg nga bëgg koo xam dëgg dégg te bu nga pour nga xam maanaam maanaam mentalité américaine dëgg-dëgg dëgg il faut nga xam seen culture culture américaine dëgg-dëgg mënoo koo xam te jàngoo làkku anglais ndax làkku anglais bi moo lay xamal américain ñoom fan lañ toll boo jàngul làkku anglais te ñun la the time is money ñun la a maanaam waxtu xaalis la kon da ngay daal di mën a dégg ne américain kat du jëf dara ngir yàlla lépp lu mu def moom jàpp nañ da caa war am lu mu cee gagné ci xaalis te loolu mooy pas-pasu américain dëgg-dëgg te loolu jàng làkk bi moo la koy may kon ngir nga mën a dégg dëgg mbatiitu américain yi ngir nga mën dégg seen culture seen aada ak seen cosaan il faut que nga maîtriser làkku anglais bi ngar nga mën koo xam loolu nag mën nga wax ci france ak yenn làkk yu mën ti doon kon askan woo bëgg a xam ñoom ñeen ñeen dëgg-dëgg il faut nga jàng seen langue ba man ko ndax làkk bi ci la seeni mbir nekk ci biir te bu yàgg nag waxoon nañ benn muy wax xadis wala lu ko jege suñu alaaji ne ku jàng làkku aw ñeneen da nga mucc ci seenu ay bis boo déggee làkku keneen aw ayam mën nga caa mucc ndax du la mën a jëw du la mën a fexeel waaye nag su fekkoon ñun dañoo toog fii ay américains ñoo toog suñu wet te kenn nit ñun xamul dara ci anglais mën nañoo fexeel ba jaayi ba jëfandikoo ñu te ñun duñ ko xam lu mel ne su El Hadj juñ na ko lekk dañ ci gën a ñëw ci kanam ñu gisit ne léegi avancement bi am ci wàllu xam-xam ci wàllu technologie ngir ñu mën koo am dëgg-dëgg il faut ñu jàng yeneen làkk yi. ndax découverte scientifique yu baree bari binduñu ko ci wolof binduñu ko ci séeréer binduñu ko ci joolaa li ci ëpp ci anglais lañ ko bind la ca des ci yeneen làkk yi nga xam français ak yu mel noonu wala espagnol leen li ci arab kon ngir ñu mën a dabe ci dëgg-dëgg mën a jëggaani technologie bi ñu soxla ngir mën a développer suñuy réew il faut que ñu jàng làkk yooyu ngir mën a jël découverte scientifique yi nga xam ne nii am na noonu ñu ko waxee ci lislaam nag waxe ko ci euh, dégg mbatiitu ñeneen yi noonu lañ koy waxee ci tasaare njàngaleem sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu ngir ñu mën koo tasaare dégg dëgg tasaare gi ci war il faut ñu jàng yeneen làkk yi ba man cee wax ak ñooña ci làkk bañ nàmp làkk bañ seen làkku ndey wala seen làkku famille ñu mën caa wax ak ñoom te ku nekk nag war a xam ne boo jàkkaarloo nit yoon wi gën a gàtt ngir nga dugg ci biiram man a jeexital ci moom mooy nga wax ak moom ci langue bu mu dégg tey tubaab bu ne woon ci suñ biir ñëw di làkk wolof yi leer nañ ñëpp koy bàyyi xel ndax day wax ci xol yi xol lay taf. am na ku waxoon ci borom xalaatkat yi nee na woon su fekkee da ngaa wax ak nit ci langue boo xam ne nii langue bu mu jàng la ci misaal ma ñëwoon di wax ak yow ci arab wala may wax ak yow ci français loolu moom dana dugg sa bopp nga dégg waaye neen su ma waxee yow ci langue bi nga xam ne nii moom nga cosaanoo. sa xol lay dugg kon ngir nga mën a àgg ci yëg-yëgu nit ki dëgg-dëgg il faut nga laxoo moom ci làkkam moo tax dana nañ dal ñun ñi mën nañ ci joxe misaal yu bare bari tey boo gisee lu baree bari ci ñun jom ji ñu war a am duñ ko am maanaam ngor gi ñu war a am duñ ko am ndax làkk bi ñuy làkk da dul wolof maanaam dul suñu làkk waaye tey fekkonte bu ñu lay bàkk ñu ngi lay bàkk ci làkk wolof wala ñu bàkk la ci pulaar wala ñu bàkk la ci séeréer na muy duggee ci sa xol du bokk bu ñu lay bàkk ci français wala ñu lay bàkk ci anglais wala ñuy bàkk ci arab ndax day làkk boo xam ne nii du sa làkk kon jàng loo làkku nit ngir mën a jeexital ci moom ci jumtukaay yi ñu mën a jëfandikoo la ngir mën a tasaare njàngaleem sëñ bi kon làkk yiñ moomul jàng ko ku nekk xam ne ni jamono ji ñu toll nii mën nañoo wax ne sax lu mën mënta ñàkk la lislaam nag di diine joo xam dafa matale di diine joo xam ne nii itam ci mbooleem mbindeef yi la ko sunu borom wàcce kon ñëpp ko war a xam arab war na koo xam tubaab war na koo xam anglais war na koo xam ñu jéem a xam kon lislaam moom ban atte lay jox jàng aw làkku jàmbur mën naa ko tënk nag ne jàng français wala jàng anglais ndax moo fi moo ñu gën a jege arab mooy làkk bi nga xam ne ci la lislaam wàcc loolu wax nañ ko léegi waaye ci gëstu gis nañ ne ci azar azar buñ koy wax ci delluwaay yu mag yi ñuy dellu ci jamono jii ci wàllu lislaam ci la bokk donte am na yu ne ci biir waaye ci la bokk mas nañ faa laaj ab laaj boo xam la mu doon laaj mooy ne jàng làkk langue étrangère yi ban lan mooy atteem ci lislaam ñoom lañ te tontu woon dañoo wax ne jàng làkk yooyu de maanaam woote gi ñuy woote ci lislaam léegi moo ko soxla woo ñu ne nag ngir ñu mën a dund ak àdduna bi tam ci dundin wu tegu ci jàmm te mënuñ ko ñàkk bañ a def ndax ay jullit kes nekkuñ ci àddina bi dañoo seq ak ñeneen kon day mel ne lislaam dañoo farataal ci ñun ñu war a jàng làkk yooyu ba man ca ba mën a jàllale lislaam ci ñoom waaye tam mën a dund ak ñoom ci dundi woo xam ne dana tegu ci yoon ñu daal cay teg nag ne amul benn texte nag boo xam ne nii alxuraan la wala xadis bu wér buy ñëw di wane ne kenn wërta jàng tubaab wala kenn wërta jàng français bal bilax wala safaan ba sax moom ñu daal ci nettali benn xadis boo xam ne nii yonente bi sallallahu moo ko wax kooku ku ñuy wax Zayd ibn Saabit nee na yonent bi daf koo digaloon mu dem jàngi làkk wa nga xam ne ni moom la waa yahud moom la yahud yi doon bindee mu ne ko yonent bi moo ko digaloon mu jàng ko ba ma ciy bindal bu yox bi soxlaa ma bindal ko ci ñoom ma bindal ko ko suñ ko bindee moom itam ma jàngal ko ñoom liñ bind kon nag ñu daal cee teg ne kon léegi cosaan kon mooy ne jàng làkku jàmbur moo xam français la wala anglais moom ci lislaam dafa dagan dagan na ngir bu fekkente ne jaa bëgg a jooxe maslaha intérêt boo xam ne nii intérêt bi yoon la intérêt bi la ñu teg teg nag ne kon waaye nag li gën a siiw mooy ne ci yonent bi sallallahu ak saxaaba yi ñu gannaawam ñëpp ci ñoom arab lañ daan jàng daawuñ jàng beneen làkk lu dul dañoo gis ne mënta ñàkk ñu jàng ko ngir man caa jooxe lañ ca bëgg a jooxe keneen nettali na ne ci saxaaba yi ne yonent bi masa ko laaj ndax ne ko ndax yow man nga siryaani ya siryaani xeetu làng la mu ne ko ndax man nga ko ndax man ñoom kat léeg-léeg dañ may bind lettre ma bëgg nga di ko jàngal wala yu mel noonu nee na waa ji nee na ma ne ko mënuma ko de yonent bi ne ko demal jàngi ko nee na ma jàng ko ci fukki fan ak juróom-ñaar kon kooku yonent bi dafa ko digal ne làkk boo xam ne nii du làkku arab làng étrangère la woon ci jamono yooyu am keneen ku ci waxaat ne yonent bi de ay lettre da ko daan ñëwal yoo xam ne nii du bëgg keneen xam ko ku dul koo xam ne nii homme de confiance am la comme wóolu la moo tax ñu gis ne kon nag jullit yi dañuy soxla woo léegi ñu jàng yeneen làkk yi ndax am na suñu secret yoo xam ne nii bu ñu ko bëggee garder dëgg dëgg ñoo koy yore suñu bopp buñ ko soxlaa bind ci beneen làng ñoo koy bindal suñu bopp buñ ko soxlaa jëfandikoo ñoo koy waxal suñu bopp te it àddina bi toll na foo xam ne nii da ngay soxla ambassadeur bu la toogal barab tey nga jël koo xam ne nii Sénégal la dëkk nga yóbbu ko Arabie Saoudite ci misaal nommé ko fa ambassadeur te moom déggul arab fi la xaqiqa pour mu doxal mission bi war a dox dëgg-dëgg day des kadaalika naka noonu nga jëloon ambassadeur yóbbu ko Amérique xam ne nii déggul anglais déggul kii moom it pour mu dox mission dëgg-dëgg dafay xaw a jafe te léegi jullit nag ñëpp la ñu jëflanteel réew ji ñëpp la ñu kon day am ne kon mënta ñàkk am ñoo xam dañ jàng langue yooyu ngir nañ ca war a taxawee ñoom ñu mën ko caa taxawee ñu ne nag kon atteem ci lislaam mooy fardu kifaaya fardu kifaaya nag bu ñu ko waxee ci lislaam mooy loo xam ne nii bu ko ñenn ñi jooxee te jooxin wa mat sëkk te dañ ko war a mën a jooxee jooxe ko noona mu wàcc ñeneen kon waxuñ na ñëpp dem jàngi tubaab wala ñëpp du jàngi anglais wala ñu waaye na am ñu ko mën a jàng te man ko man goo xam ne nii la ca lislaam soxla yoonu muri soxla ko ci danañ ko ci mën a doxal moo tax bu ko ñenn ñi defee mën naa wàcc ñeneen ñi buñ ñëwee ci njàngaleem sëñ bi nag buñ doon gëstu ban atte lañ koy jox yaakaar naa ne amul kenn koo xam ne nii mën ngaa wax atte boo xam ne nii ci sëriñ Tuubaa bu jógee sëriñ Tuubaa boo xam ne nii day wuuteeg atte bi jógee ci si lislaam kon taxawaay bi lislaam am ci làkk yooyu sëriñ bi mën naa am bu mel noonu donte nag war na noo bàyyi xel bu baax nag dañ ci ñëw ci kanam naka la ñuy jànge luxa yooyu langue yooyu nu koy jànge ak yan garde maanaam yan garde fou la ñuy teg maanaam yan barrière la ñuy teg ak yan kii la ñuy teg suñu xel ba mën a jàng làkk yooyu ba du wëlbatiku nekkub safaan boo xam ne ni daf ñuy lor ba tax ñuy sàggane suñu làkk yi nga xam ne nii moom lañ am te dañ ci ñëw ci kanam tuuti kon loolu muy atte bi ci lislaam bu ñu bëggoon seet nag léegi sëriñ bi moom ban taxawaay la am ci làkk làng yooyu li ñuy tuddee ay làkk yi dëkkut ci réew mi loolu sunu njàngat lay doon dañuy jéem a jàngat biographie sëñ bi jéem cee génne position sëñ bi li ñuy njëkk a seetlu ñu ñëpp dëppoo nañ ci ne sëriñ bi mësta bind ci lu dul arab sëriñ bi li bind lépp ci arab la ko bind te ci tàmbale bi dëppoo woon nañu araab moom ci langue étrangère yi Sénégal ci la bokk kon moom benn ngi noonu kon sëñ moom jàngoon na arab te arab du aw làkkam kon aw walan li bind lépp ci arab la ko bind mën nañoo dogu ci tam ne sëñ bi am na yeneen làkk yu mu déggoon am na ay xasida yoo xam boo koy jàng da nga ciy gis ay baat yoo xam ne nii dalay lay wóor ne du baatu wolof du baat bu jóge Sénégal te du te du te du France wala boog te du arabe mu wóor leen kon beneen làkk la. ba ci baatu baraqalit baraqalit mooy paraclis xalit mooy terme la ci wàllum diine chrétien boo xam ne nii ñu baree bari xam nañ ko mooy ruuxul quds sëñ bi dana ko bind ci yenn téem tudde ko baraqalit te du arab du làkku Sénégal ci muqaddamatul xidma boo koy jàng dañu ci gis baat yu baree bari yoo xam ne nii doo xam ban façon làkk la ay maatamas ay yu mel noonu baat yu baree bari ci muqaddama loolu kon la muy tekki mooy ne baat yooyu mën naa am làkk ya sëñ bi doon joññanteel ndax xeet yi doon joññanteel ñooñu seen i làkk la baatu kax léeg ñu fekk ko ci mbind yi te kax turu yàlla la ci làkku faraayin yu njëkk yi hiéroglyphe maanaam ak kax turu yàlla la ci kon loolu mi tegtale mooy ne kon sëñ bi am na yeneen baat yu daan jëfandikoo yoo xam ne nii du wolof du làkk bu jóge Sénégal kon làkk keneen la kon loolu itam tegtal la ci ne kon sëñ bi am na yeneen làkk yum yoo xam ne nii mën naa am euh, déggoon na ko ëtt bii ñu toog di sëñ Balla Coro xëy na ñoom dañ ñëwal seen bopp sëñ Balla ci boppam ku nekk xam ne ne jàngoon na làkk tubaab ba man ko lool te jàpp ma ne dana def loo xam ne nii dana wuuteeg ndigalul sëñ bi loolu tam kon tegtal la ci ne gis nañ tam ci ay masa ci ay ay ressources yu xaw a wér yoo xam ne ni wax nañ ne tubaab yi colonialiste yi bi ñu bëggee ubbi école boobu ci njaareem dañoo ñëw wax ko sëñ bi sëñ bi dajale magi taalibe yi jot leen ko wax nañ ne sëñ Mbàkke Bousso moom bokk na ci la ko waxoon daf ko ne woon su fekkee ndigal ngay joxe ndigal loo joxe ñu def ko su fekkee dañuy laaj nag gis-gis nag man am naa ci xalaat sëñ bi ne ko maa ngi déglu sa xalaat sëñ Mbàkke ne ko day su fekkee mën nañu ubbi école bi ñoom di jàngale ñun ñuy yar dara newu ci na ñuy jàngale ñoom ñuy yar ndax yar bi moo am solo ba tax ne wax nañ ne loolu ñu tee franco mouride wala école boobu doon jàngale tubaab ci Jurbel ci kër gu mag wax nañ ne cosaan loolu mooy cosaan la ko ubbi am na doomi kilifa yi jàngoon si suñ mu laay sëñ bi tudd na ko léegi wax nañ ne jaaroon na foofu liñ mën a wax li ci gën a néew ci wet googu mooy ne kon sëñ bi moom mënuñoo wax ne sëñ bi joxe woon ndigal nañ jàng tubaab wala njàng benn waaye moom sëñ bi moom néewutoon bu kenn jàng làkk bi des nag taxawaayu lenn ci magi taalibe yi lenn ci murit yi sëñ bi ñëw na ci léegi taxawaay yooyu dafa am lu ko waral position yenn taalibe yi ci njàngum tubaab wala njàngum anglais wala njàng beneen làkk boo xam ne nii du làkk réew mi dafa am lu ko waral bokk na ci li ko waral coono bi nga xam ne nii tubaab yi wala colonialiste yi teg nañ ko sëriñ Touba ci coono yoo xam ne nii tegul fenn coono boobu ko xam ne Serigne Touba jàngoonteel ci fanweer at ak ñett coono bu ñuy teg doomu aadama ñu teg ko ko ku nekk xam ne ne ka teg loolu sëb sëriñ dootoo ko mën a bëgg mag ñi ci lañ jaare bañ tubaab yi ba far bañaale làkk tubaab loolu benn la ci bi ci desit mooy ñu bari dañuy jaxase ñaar yu bokkul da ngay dégg ñu naan diw nasaraan lay jàng nasaraan du aw làkk nasaraan diine la nasaraan mooy christianisme ci arab ak nasaraan yëpp mooy diine chrétien ci arab ñu bari nag dañ koy jaxase bu ñu nee diw nasaraan lay jàng mooy français lay jàng mag ñi ne jàpp nekkoon boo jàngee français day mel ne da ngay nekkub chrétien te bokkuñu ñaari yi bokkuñu loolu tam lu ñuy jaxase la te ba léegi nag jaxase googu sax ñun ñu koy jëfandikoo. beneen bi tam mooy melokaanu ñenn ñi jàng tubaab wala ñeen jàng yeneen làkk yi ndax am na ñoo xam te wax dëgg yàlla buñ ko jàngee ba ñibbisi na nanuy mel day découragé loo ñeneen ñi ci des tey yow nga nekk juddoo ci dëkk sa kanam waajur ak sa baay ñu jël la dugal l'école di la toppatoo ba nga màgg sam njàng kawe nga war koo yokk dem mën naa am nga dem ba gën dem France dem jàngi boo ñibbisee looy wax mooy ñii kenn mënta nekk ak ñoom ndax dañoo jàngut xeeb leen xeeb làkk wa ñuy wax tuutal leen dootoo fa nangoo sax dëkk boo fa ñëwee la ñuy lekk doo ca nangoo lekk la ñuy naan doo ca nangoo naan léeg-léeg da ngay indaale sa butéel wala nga indaale sa nangam nangam dootoo nangoo jëflante ak ñoom sa kër bu ñu fa ñëwee doo leen fa yaatal ndax ñoom dégguñu tubaab xëy na taxawaay boobu nag nekk ci ñenn ñi jàng làkk yi am na ci ñi jàng arab sax am na ci am na ñoo xam ne nii ah bu ñu delloo fa ñu dëkkoon ñoom it dañuy xeeb la seeni maam doon dund weddi leen ne lu ñu wax nga ne la biddaa la nangam nangam weddi loolu dana tax nit ñi ragal jàng làkk yooyu ndax dañ jàpp ne ñëpp ku ko jàng dañoo am ngay mel waaye nag fi laqiiqa du ñëpp kon loolu benn la ci sabab yi nga xam ne nii tax na nit ñi bañ jàng làkk yooyu waaye nag du du doy ci ne kon waruñoo jàng làkk yooyu ndax yooyu yëpp lu ci nekk am na lu ko waral te la ko waral bañ ko xamee ba saafara ko loolu mën naa saafara mu des nag léegi ñu waxtaan tuuti ci ay jafe-jafe ay problème yoo xam ne nii ñun ñàkk gi ñàkk a jàng tubaab tubaab rek laay wax léegi dootuma wax anglais waaye ñàkk gi ñàkk a jàng tubaab daf ñoo indil ay problème yu baree baree bari yoo xam dañ ci tudd yennat bi ci njëkk mooy si El Hadj Ndiaye ñëwoon na ci léegi relation sëñ bi ak tubaab bi ku nekk xam na ne la koy yokk ñàkk jégg tubaab ci la bokk interprète bi doon interprété sëñ bi la muy wax benn moo ko tey moo ko tey di ko di ko di ko di ko di ko waxee naka su dul noonu wala ñàkk déggam tubaab yóbbee ko loolu ndax xam ngeen ne làkk ngir nga man ko ba man cee wax wax ju teggiinu man cee wax wax ju leer joo xam la nga bëgg a wax da nga ko wax te doo jëm ki ngay waxal loolu day fekk nga maîtriser langue bu baax a baax boo ko mënul doo ko mën moo tax léeg-léegi bu fekkee mënoo langue direct ngay waxe baat yi direct ngay jëfandikoo tey boo xoolee ñi déggul baax bu ñëwee di wax ak yow ñoom direct la ñuy wax baat yi ngay suturaal yépp ñoom dañ koy wax directement loolu nag kon mën naa am ka doon ka doon sëñ bi benn moo ko ci jublu wala ñàkk ñàkkoon a dégg tubaab tax na nam doon waxee bokkut ak ni sëñ bi doon waxe mu di ko jottalee noonu waaye lu ci mën di xew daal ñàkkoon a jàng tubaab moom bokk na ci li taxoon sëñ bi diggam ak tubaab bi gën a ñaaw ndax bu leen ngeen bu leen bu ngeen fàttalikoo sëñ bi ñaari yoon la yónnee ndar sëñ Basir bind na ko ci Minanul Xadim yoon wu njëkk wi sëñ Mbàkke Buso la fa yónni woon moo fa demoon ba mu demee ba mu waxee kañ doon wax naa ko yaa moom ndar ba mu waxee moom ba noppi waaja dafa kontaan ba ay jël ay téere ak ay cadeau ne ko boo demee joxal ma ko sëñ bi gannaaw bi la situation bi soppikuwaat ba li ci amaat amaat te wax nañ ne tam biñ sëñ bi demee ndar sëñ Mbàkke xasidaam googu mu taalifoon te dënke woon ko xullil amiri wala tuhib ka haybatuhu innal mahabata xidnul adli wa sadadi wax nañ ne di ci waxal sëñ bi mooy kan wax nañ tubaab ba ba mu jotee ci xasida googu mën naa am bu ci teeloon a jot position bi am du ko am kon ñàkk a dégg làkk bi moom lim njëkk am causé problème bi mu njëkk a teg mooy ne digg diggante sëñ bi ak tubaab bi bari na lu ci gàllankooru te fi la xëy la gàllankooru dëgg-dëgg mooy ñàkkoon a am ñu dégg làkk bi ba di ko waxal li nga xam ne ni moom la bëgg a wax donte nag am na yeneen asbaab ni ñu ko tuddee léegi. beneen problème bi mu ñu causé mooy am nañ jafe-jafe ci tasaare njàngaleem sëñ bi ci yeneen dëkk yi. léeg-léeg ñu def ay karawaan dem Amérique ne dañuy def karawaan wala dem France wala feneen waaye bu ñu demee ñañ fay dajale yëpp mooy sénégalais yi nga xam ñoo fa dëkk la ñuy dajale wax ak ñoom ay wolof waaye fi la xeexa amuñ contact direct ak américains yi nga xam ñoom anglais lañu dégg wala yu mel noonu ñuy dugg seen biir di ko wax ak ñoom mbir ma ne mu war a demee demeewu noonu moo tax boo xoolee Afrique gi donc Nigéria walla wala Tchad wala dëkk yooyu na fa yeneen yooni Sénégal yi tasaaroo lu mel ne yeneen turux yi nañ fa tasaaroo yoonu mu foofu noonu am na yoon yoo xam ne nii Nigéria donc ay million lañ fa ci ay taalibe kon yaakaar naa ne ñun li sëñ bi jàngale bind ko tey bu ñu fexewoon ba maîtriser langue yooyu bu ñu demee am contact direct ak waa dëkk ba di wax ak ñoom mën nañoo convaincre ay millions ay millions doomu aadama ci njàngaleem sëñ Tuubaa loolu ko benn jaf benn jafe-jafe ñu noonu. am na beneen problème bu ñu jàng tubaab ñàkk jural mooy am nañuy jafe-jafe ci suñu biir réew mi ci jafe-jafe côté administratif am nañ ci jafe-jafe bu mag mag ndax làkk bi Sénégal am mooy langue officielle bu Sénégal tubaab la tubaab boobu boo ko mënul say formalité administrative pour mu dox ni nga bëgg mu doxee ko dana jafe lool tey boo demee ci bureau yi la nga fay fekk ci ay taalibe la nga fay fekk ci njudut taalibe ñoo ko ëpp bari na dossier murit bu gàllankoor te ka ko gàllankoor mi ngi ko gàllankoor parce que du am te mu war a jaar ci bureau ba mu nekk moom war a jàll mu gàllankoor kon loolu benn la te français bi ñuy wax ne mooy langue officielle kenn mënu koo soppi te jaaroo ci français bi même bu ñu bëggoon la soppi langue bi dangay ngay jàng français ba noppi dem compétir gagné président dooroo mën a ñëw changé langue bi waaye boo déggul français bi moom doo nekk candidat ci présidentielle. kon même bu ñu ko bëggoon soppi ñun il faut que dañu jàng français ba pare dem dem xuloo xëccoo gaa gañe ko ñëw soppi langue bi waaye ñàkk koo jàng jural nañu gàllankoor yu baree bari ci wàllu administration bi jural nañu tam koo xam ne nii wërtoon a xam suñu secret di ko xam tey bari na liy jóge ci kilifa war a dem feneen kami transité moo koy sennal ndax day transité lu tax ndax moom moo man français bi xëy na mooy bindal sëñ bi wala moo koy doxal démarche yooyu te moom mën naa am sax pion la boo xam ne ni gars yi ñoo ko fa samp bu ko defee lu sëñ bi wax bu demee jot lu gars yi kon secret bi ñu war a am dëgg-dëgg suñu biir du mën a du mën a duñ ko mën a téye ni ko war ndax am na ñeneen ñoo xam ne nii ñi ngi fi ñoom ñoo koy ñu koy xam kon loolu lu mat a xam la te it tey ñun murit li ñu domi li ñu maanaam secteur bi ñu dominé Sénégal mooy secteur informel commerce ak industrie moom taalibe yi rek fi nekk waaye administration bi moom fi la xiiqa maanaam pourcentage bu néew lañ ci am par rapport ak ñi nga xam ne ñoo ci nekk di ci liggéey kon loolu beneen jafe-jafe la te ngir ñu mën ci am représentativité bu mat sëkk nag il faut que dañuy man langue bi ñu koy liggéeyee ñu dem toog fa bu yittey murit ñëwee nu koo jàllale beneen a ngi nii boo xam ne ni jafe-jafe la ci biir dëkk bi tey service yi nekk Touba fi la xiiqa ni ñuy doxalee néexul kenn ku nekk Touba ñi ko yor xamuñu lan mooy mouridisme xamuñu valeur murid yi te feneen lañ jógee ñëw fi jàng nañ daal ba am seen lijaasa poste bii mën nañ ko occuper ñu noomee leen ñu ñëw yor ko tax service yu baree bari yi fiy dox fi la xeex na muy doxee doxin wu doy waar lay doon ndax ay nit dafa nekk yoo xam ne nii jàppewuñ waa tubaa ay nit ndax dañuy jàpp ne ñoom nit ñu jàngul lañ service yu baree bari te ñu bari xam nañ ko mas na maa dal man anu benn service bu nekk fii ci Touba dama faa dem di fa wut benn kayit mu war koo signé xaw a yee xam tal ma ne kon jox ma kayit yi ma yóbbul ko sama bopp ca fu mag fa ñu signeel ma ko. ma dem jox ko waaj waaj ne ma yéen di wax dëgg yàlla da ngeen doyoor waaye dossier bii waroo ko indi ñoom ñoo ko war a indi seen bopp ma ne ko sëñ bi xam naa ko waaye dama ci mënu dara te loolu la ko war rek mooy ne ka fa nekk moom xamut xamuñu ñun xamuñu néewaa na nga dem ci service ci Touba fekk fa koo xam ne nii Touba la cosaanoo mu nekk fa chef ca bureau néew na service bu man doon nag léewaat nga dem fekk fa koo xam ne nii waa la dëgg dëgg dëgg ba noppi jiite service bi te dara waralu ko nag lu dul rek maanaam maanaam maanaam maanaam sàggane guñ sàggane làkk bi nga xam ne nii ci la administration sénégalaise si dox loolu loolu loolu mi ngi ci kon loolu tam nu war koo bàyyi xel beneen jafe-jafe ngi noonu boo xam ne nii pour ñu régler ko tam man waa Touba mën a placé wu ci fëtt waa nekk di leen liggéeyal il faut ñu man làkk boobu ñëw placé wu foofa di fa doxal jural nañu tam gis-gis bu gàtt gis-gis bu gàtt fi làkk fekkente ne yow benn làkk doo nga mën ci misaal wolof doo nga man am na ñoo xam boo ñëwee di làkk France sax da nga leen di tànqal boo ñëwee di wax arab waxi nopp du ñu nangoo déglu ndax li ngay wax nit ki bu fekkee da ngay wax li ngay wax xamul lu mu doon pour mu déglu la day jafe moo tax pour ñu communiquer ñeneen ñi dafay xaw a jafe ndax langue ñi yi nga xam ne nii dese ko man loolu tam ne leer na lool kon yooyu ay jafe la yoo xam ne nii ñàkk a jàkk ñàkk a jàng langue bi ko jural kon wax nañ ko loolu mu leer li ci topp mooy kon nag bu ñu bëggoon xam léegi bu ñu jàngoon langue yooyu muy français wala wala anglais lan la ñu mën a jural loolu yow yomb naa xam ndax dañ lay wax ne la problème bu mu mënti doon boo xasee ba ne lii mooy problème bi. boo ko dëppee rek mu jox la solution tey ñun bu ñu ne woon dëppoon na ñun ñëpp day seen problème mooy ñàkk respecté waxtu dëpp ko boo ko dëppee rek mu jox la solution mooy respecté waxtu mu daal di solution kon yii ma fi tudd mooy ay jafe buñ ko dëppee rek mu daal ñuy jox solution ñu ci bëgg a régler rek dañ koy daal di am moo tax buñ ko analysé woon dañuy gis ne ñàkk jàng loxo yooyu ñàkk ko jàng lim ñu jural xam nañ ko kon bu ñu ko jàngoon loolu dafay daal di saafaru bi njëkk mooy bu nu bëggee jàllale discours sëriñ bi ñoo koy jàllale suñu bopp kenn duñu ko jàllale dootuñ jëfandikoo ab traducteur wala interprète boo xam ne nii mën na caa dugal lu ko neex. danañu jural itam ni ñu dominer secteur informel bi ñu mën a dem ba dominer ko secteur formel ndax problème làkk rek la te bari nañ bariwaay boo xam ne nii mën nañ ko. waaye itam danañu jural nu mën a fexe ba service yi nekk Touba ñu mën koo teg ci yoon ba muy jariñ waa Touba. waaye dootuñ fi ñëw di fi doxee nu leen neex te kenn du leen mënal dara kon loolu lu leer naa ñi la loo xam ne bu buñ ko dëppee fële dana nu ko jox mu des nag liñ bëgg a tënk mooy naka la ñuy jànge làkk yooyu ndax lu ci am solo la kon gis nañu làng yi moom yaakaar naa ne ñun suñu gis-gis mooy jàng gi moom mënta ñàkk mu des nag léegi nunu koy jàngee ndax xam ngeen ne làkk ñaari dimension la am am na làkk bi fi mu nekkee dimension bi nga xam jumtukaay rek la dañ koy jëfandikoo ngir communiquer waaye tam bàyyi xel ne làkk dafa dimension culturelle boo xam ne nii maanaam làkk bi dafa moo bu nekk dafay indaale maanaam charge boo xam ne ni wàllu culture lay indaale moo boo gis rek am lu muy indaale ci saxaaf lu muy indaale ci mbatit moo xam ne ni borom làkk wa moo ko moom boo leen mënta tàqale nag da ngay jëlaale làkk bi jëlaale culture bi bu ko defee da ngay sànq sa bopp moo dal ñu baree bari nag am na ñum dal ca arab bi am na ñum dal ci bariwut waaye am na ñum dal ci tubaab bi surtout ñoo xam ne nii dañoo dem meneen réew jàng fa mënuñoo xàmmee la cay jumtukaay ay la cay aada ak cosaan ñu jël lépp indi ko defe ne lépp dañ ko war a jariñoo te lépp waruñu koo jariñoo texte yi ñu jàng jëlal benn livre lecture ci misaal bu fekkente ne ab tubaab la ko bindal la mu bëgg a def ci yow ci texte boobu mu lay jàngal nga di ko jàng pour dégg français moom ca koy jaare am si la yim lay jox misaal yim lay jox maanaam exemple yim lay jox ca lay dugal lam bëgg a def ci yow ci misaal tey jàngkat français bu baree bari bu bëggee tagg nit danaan il catholique te catholique xamul ne diine la boo ne diw il est catholique moom pour moom diw moom ku baax la maanaam jaar na yoon léegi loolu te loolu dafa jëlaale culture bi boole koog làkk bi di ko waxee noonu te fekk na moom maanaam ki muy waxal moom bëggut nekk catholique ndax ab jullit la jullit kay boo ko taggee ne ko ab catholique nga yëpp baax waaye bokkuñu pas-pas kon exemple yooyu ñuy joxe di la ko jàngal bu buñ la koy jàngal lu baree bari ci lañ koy jaarale texte yi ñu lay bindal muy nekk texte lecture boo xam da nga ko war a lire di ci jàng di yëgale tubaab ci la ñuy jaarale ci la ñuy jaaree conquête culturelle bi nga xam ne moom la bëgg a def ci yow wala boog rasu saqaaf yi bi nga xam ne nii moom la ñuy def kon nag buñ koy jàng il faut ñu bàyyi xel ne nañ ko jël en tant que jumtukaay waaye nag ñu bàyyi leen seen i aada ak seen balaañ koo jàng li ci njëkk mooy nañu fexe ba taalif ay téere taalifal ko suñu bopp tey livre lecture ci français am na ay Sénégal yoo xam mën nañ koo taalif taalif ko dugal ci biir suñuy aada ak suñuy cosaan exemple yi ñuy joxe ci grammaire yëpp ñu soppi ko dugal ci suñuy aada ak suñuy cosaan ñun bi nuy jàng Cees ci def école primaire am na ku fa nekkoon koo xam ne nii ku sóobu la ci yoonu murit bam daanu jàngal français waaye daf fexoon ba def ay compose ay texte boppam yoo xam ne sëñ bi la ci doon tagg yan yi mu ci tagg yoon salaa salaam dina ko jàngal te ci moom moo lu ko làkk tubaab la ñu doon jàngal waaye ci texte yooyu la doon jaare dina ko jàngal loolu démarche la boo xam ne nii bu na ko poussé woon dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg mën naa defar lu baree bari tey sëñ Cheikh Fatma Mbacke moom sëñ Moustapha Bassirou defar na dokiment bu am solo biographie sëñ bi la jël ah, def ko bande dessinée te ku nekk xam ne bande dessinée ni mu amee solo ci langage ñu koy jàngale tey loolu mu def noonu bu ñu ko poussé woon tey mën naa remplacer livre langage yu baree bari ci biir école yi bu ñu ko defoon ñu pousse gën koo gën koo parfaire gën koo defar bu mu gën a baax kon am na fi ñu fi nekk ñoo xam am nañ initiative bu ñu leen dimbalee tuuti mën nañoo taalif ay textes yoo xam ne nii mën nañ caa jàng alal aqal kii door a dal lu mu néew nu kii door a dal di xale nu jàngal ko yooyu ba mu yeew bu yeewoo nag xëy na mën naa jël yoo xam ne diw ak diw ñoo bind keneen ak keneen ñoo ko bind kon loolu tam ñu bàyyi ci xel ki koy jàngale war nañ koo tànn bu baax ndax tey am na ñoo xam dañuy jàpp ne bu ñu jàngee tubaab ñoom waratuñoo sol caay ak forog am na jigéen ñoo buñ bu ñu xasee jàng tubaab dañuy jàpp ne waratuñoo musóoru man man am na école bu ñu ma mas affecté boo xam ne nii benn prof histoire dafa ñëw di jàmbat ci principal bi xam nga tukulóor ñoom. maanaam boo xasee am borom kër da ngay musóoru waa ji daal yëf yi métti ko mu ñëw ci professeur ni ko jàmm ne ko daal man daal wax dëggal xale bi musóoru ci classe bi moom métti na ma lool ah parce que foofu la toll moom jàpp na ne moom comme français lay jàng waratu musóoru muuru kon kiy jàngale te gëm loolu boo ko andee muy jàngal fi la xeex dafay yàqaale ji koy xale moo tax jàngalekat bi ci boppam dañ ko war a tànn léegi nag ñun murid yi am nañ ay nit ñoo xam ne wax dëgg yàlla langue bi moom léegi yàlla dimbale na leen ci te it yàlla dimbali na leen ñu bëgg sëñ bi bëgg melokaanu sëñ bi di ko doxe loola tey bu ñu amoon suñuy école yoo xam ne ni ñoo koy saytul suñu bopp ñooña mën nañ leen a jël même état bi sax école ubbi bu la neexoon bu ñu neexoon tey ñu imposé ndax am nañ doole jooju ne ko kat école boo ko ubbee doo fi affecté jàngal bu mel nangam ak nangam doo ko fi affecté te dañ ciy fekk si ndax suñu doole may nañu ko kon loolu moom mooy li jiitu kon nan fexe ba buñ koy jàngal xale yi nu soppi contenu yi maanaam li nekk ci biir nu soppi ko exemple yi ñu soppi ko dëppale koog suñuy aadaak suñuy cosaan dugal ci biir njàngalem sëñ bi xale yi di ko jàng en tant que ay textes yoo xam ne nii texte lecture lay doon bu ko defee bu ñu deebaa nag danañ mën a garder waale suñu démb suñu tey te danañ mën a déggaale làkk yooyu boo xasee dégg làkk ba mën ko ba yeewu nag bu la neex liir yeneen roman yi nga xam ñeneen na ko bind kon Sëñ Alaaji ci tënk xam naa loolu daal mooy taxaw seetlu yi nga xam ne nii defoon nañ ko ci tomb bi muy tomb boo xam ne nii gis nañ ne tomb bu laaj ñu jàngat ko la ñi nga xam ñoo ŋànk dëkk bi la xiixa tey wax ñuy def di digle ñuy bàyyi di digle ñuy def di tere ñuy bàyyi ñooñu jàpp naa ne <laughs> war na noo mën a toog ñu waxtaanaat jàngataat mbir mi objectivement xoolaat ko baax a baax ndax défilé boo xam ne nii mi ngi suñ kanam te mi ngi ñuy gàllankoor ci lu baree bari di ñu téye ci lu baree bari ci côté yu baree bari yoo xam waxtaan ci yu baree bari te mbir la moo xam ne nii ñu baree bari nañ ciy waxee fi laqiqa bokkut ak nam demee dëgg-dëgg ndax xëy na am nañ ay préjugés yoo xam ne nii mu ngi ci ñoom maanaam am nañ xalaat yoo xam ne dañ ko indaale moo tax ñuy waxee noonu kon adduna fi mu toll imposé nañu ñu jàng làkk yooyu tasaare njàngaleem sëñ bi farataal na ci ñun ñu jàng làkk yooyu ban ko caa wax jamono ji fu mu toll laaj na ci ñun ñu jàng làkk yooyu kon loolu lépp nag bu ñu ko boolee suñu gis-gis ñun dañuy jàpp ne kon jot na sëkk nag ñu toogaat xoolaat bañ taxawaay li ñuy jël suñu digganteeg làng yooyu nga xam ne ni moo dugg ci biir réew maa ngi sant di gërëm wasalaamaaleykum wa rahmatullah